bi tàmbali nañ ko laata ñuy amal bi la cérémonie officielle ñetti fan a ngi nii ndaw yi ministère bi ñu dénk wàllu urbanisme ak hygiène publique di amal liggéey bu am solo ci xale yi nekk fi ci commune bu Médina tibb nañu suuf ci ne woon ci tali bi yaatal yenn xale yi dindi fa lépp luy oto ak lu ko doon baaree génne fépp fu mbalit nekkoon. suuf boo xamante ne nag liggéey bi tàmbali na depuis barki démb ci xayma téeméer ak juróom-benn fukki oto. jël nañ ko fi ci ñaari fan mooy wane ne nit ñi nit ñuy tegee oto yi ci mbedd mi dafa jéggi dayoo te loolu ñu war ko def xeex bu mag bu rëy ku nekk war cee mën a jàpp maire wax na ko sànq yomb na trop ñëw jël oto fi mu nekkoon waaye nit ñi ñoo war a taxaw dem pour que nit ñi bañ a jëlaat ay oto di ko fa teg ay bâtiment yoo xam ne nii day waaj a màbb fii si Médina daañu leen daaneel si bésub setal bile. waa ministère bi waxoon nañ ceeg ñoom ba ñu promettre ni dañ ci daaneel six bâtiment yoo xam ni procédure yëpp jaar nañ ci ba mu jeex daaneel kese moo ci des donc ci opération bi ñu ngi yaakaar ni bu dinañu daaneel siis yi waaye du ñu bàyyi yem ci siis yi dinañu continuer di ko daaneel pour dëkk bi ne ci jàmm. samp nañ ab comité de suivi ngir ñu wëyal liggéey bi fii si commune bu Médina. su préfet bu Dakar Plateau mu ngi ñaax askan wi ñëpp dugal seen loxo ci lu ni mel. may parents mécaniciens pour xamal que ne dootuñu nangu atelier mécanicien ci kaw tëli ak koo mën a doon dootuñu nangu ku baaree trottoir parce que damay daal sama doole loolu amul kenn ku ci mën a may amul benn intervention mën koy wax maa ngi ne déggoon nañ ci wax naa ko imaam yi wax naa ko curé yi wax naa ko ñëpp. agent yu Sonaged yi suba si dibeer gi lañ fas yéene dugg ci biir marché Tilène fas ni ko bale ba mu set wecc